weddi gu gi ñu weddi Seydina Limaam moo jaxal ñëpp moo jaaxal Seydi Libaas Ñaŋ tax mu wax ni man de xama waa duniyaa lu ñuy bañ ca woote ba ni bàyyi laay li muy diglee ko wax moo di jàllu ba ñu ko lu bàyyi laay di wax mu dee leen sellal di laay laay fa jàkka ja li bàyyi laay diglee ngoog te looloo di jàllu ba borom bi ni wa na linnaas xusna day leen wax si ñu lu rafet Seydi Libaas Ñaŋ wax ni day leen wax seen mbokkum jullit wax ju tey ju baax li bàyyi laay diglee ngoog looloo di jàllu ba